بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ginnaaw bu ñu santee sunu boroom ñu ngi koy bàkk di ko kañ ci turam yu sell yi ak melokaan yu kawe yi nga xam ne sunu boroom mooy ki ko jagoo bokkliwu ko kenn nirliwu ko kenn ñu ngi julli sëlmal ci ab yonente Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan sunu borom mu dëkkee dot ci waamen xéwal ci kaw yonent bu bëggee saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain dellu siwaat nañ beneen yoon ci doon keppaaru xam-xam di waxtaanee saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci tawfiqi sunu borom ak ndimbalam tey mooy ñetteelu daje di nekk daje bi mujj ci dundu Xaalid ibnul Walid xam ngeen ni àllarba ji paase ak di ko jiitoog di ko jiitu woon ñu ngi tënkoon sunu bind bi ci dundu jàmbaar ju mag jooju nga xam ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom moo ko tuddee woon jaasi ju suñu borom bocc ci kaw yéefar yeeg naafeq yi Xaalid ibnul Walid mbokk yi ak dundam li ci tënku ci ay njàngale dafa bari bu ñu seetloo ñaari bind yi weesu yépp la ci gën a am solo dafay wane ak njàmbaar ak ngëm yàlla waaye ak kàttanal goo xam ne borom bi subhaanahu wa taala kàttanal na ko kenn ci ay jaamam yi nga xam ni kat danoo jaar ci ceddu def ca caay-caay loo xam ni yàlla rekk xam nam toll sunu borom jéggal leen tuubal leen ko baal leen ko ñoom it ñu wëlbatiku fas yéene def lu mel noona ci lu baax ñooñu kat suñu borom dig na leen ni ulaayika yubaddilu llahu sayiatihim xasanaat tey suñu bindab tey ñu ngi continuer ak imaam ju mag jooju nga xam ni Abubakar Siddiq doon na wax ni ah ajazat nnisaa wala ajazat nnisaau an yanshana mithla Xaalid mu ni jigéen ñi tëli la ñoo jurati ay doom yu mel ni Xaalid ibn al-Walid bokk na ci kéemtaan yi nga xam ne suñu borom daf ko doon defal Xaalid te loolu dafay wane ngëm yàlla gu dëggu comme ni ko imaamu Zahabi di waxee soxal nañ jëlee ci benn waaye bu ñuy wax Qays nee na am na benn bis ma fekkee ne dañoo andil Xaalid ab muus moo xam ne dañ koo maam cornet lu ñu ëmb dañ ñu am loo xam ne caa nekk nee na bi ko Xaalid ibnul Walid jëlee daal di laaj lii lan la ñu ne ko lii posan la mu daal di koy teqar ñu fex ko lekk te loola wàññiwu ko dara sotloo ci kàggu yi sunan yeeg siyar yi benn waay bu ñu wax ibni baqiila nga xam ni moom moo jiite woon chrétiens yi nekkoon ci arab yi mag la woon moo xam ni ku ñor la mag la woon moo xam ni ku muus la ku yeewu la moo tax négociation yi ñu doon def ñoom xam ngeen ci yaakaar ngeen ñu ñu ñëpp xam nañ ko buntu négocier bu xësee jot xam ngeen duñ fekk waa ji am na fa dum bi di ko yabal ndax dum moo xam ne xàmmeewut bu bu bu weex baag bu ñuul ba kenn bu ko yabal foofu waaye dañuy seet waa ji ñor te muus ñu yabal ibni Baqiila mu war a ñëw pour dajeeg Xaalid ngir ñu waxtaan ndax kat jamono jooju tuurante deret bi métti na lool xam ngeen ne xare léeg-léeg day toll koo xam ni mbooloo ma nga xam ne not nañ leen ñoom dañuy daal di wàcce seen i jaas yi tàllal seen loxo woote table pour négocier loolu sax génne àddina bi tey am na fi da ngay gis dañuy dem ba xam ne lii demut kër ñu wootante ngir toog waxtaan. Ibn Bakhila bi muy ñëw dafa ànd ak benn waay jox ko benn ceeb gu ndaw ni ko nang ma ko téyel léegi waa ji daal di koy téye bi ñu yeggee ci Xaalid ibn Walid mu mel ni Xaalid suñu borom daf koo xam loo ni kees gi kat yëf a gi ci. mu ne ibni baqiila lan moo ne ci kees gi da gone gi yore mu ne ko poson la boo xam ne boo ko lekkee ci saasa ngay dee amul sax du la muñal dara mu ne ko fasal bi loo koy doyee mu ne ko comme dañoo nekk ci buntu négocier te wóor ba xam dinañ am ndamam ndéet te man rus naa ñu naan diw moom rey su ko defee may naa ko ñaab gànnaayoo saa bu ñu demee ba dara gisul lu dul ñu nar maa rey nee na ma jël posan bi lekk ko dee moo gën a mën a indi jàmm ci sama famille bu ñu déggee ni rey nañ ma ndax su boobaa gàcce dana am ci ñoom ndax kilifa laa kenn du ma reyee ci nu yombee noonu xam nga boobu sax mënoon nañoo jël affaire ba nan ko dan la koy sol par force gàddee yooyu yëpp xale fekk ko ci dani ko mën naa koo xoola mu ne ko waaw mu daal di ko yëkkati jox ko bi mu ko yëkkatee jox ko xaalis mu ne innaha lan tamuuta nafsun xatta tatiya ala ala ajaliha gëm naa ne amul bakkan buy faatu lu dul ab àppam daa jot bismillahi xayri l asma maa ngi tudd ya turu yàlla yu ñuy wax allah nga xam ne moo gën ci tur yi rabbi l ardi wa sama kooku nga xam ne mooy borom asamaan ak suuf alladi la yadurru maa asmihi shay ki nga xam ne dara du lore ànd ak aw turam daa un jàngoro ju mën a doon nag ndax moom mooy arrahman arrahim daa ñu ko faat lekk ahlu siyar dañuy wax ne bi Xaalid yëkkatee posan bi ngir saxaaba yeeg taabiun yi ñam ko fekkoon xam ku ñu xamoon xam dafa am xeeti posan yoo xam ni mën laa muñal sax nga dund tuuti doo nga dee waaye dafa am xeeti posan tooke yu bon yoo xam ni boo koy lan ci saa dangay dee bi Xaalid di yëkkati loxo bi jëme ci gémmiñ gi am na ñu tëb ci magu saxaaba yi rek yëkkali loxo bi pour mu ko xam Xaalid maanaam kii bi yeggoon na foo xam ne faalewu sax loolu am na ñu tëb di tël loxo bi pour mu ko lekk waaye balaa ñuy yëg ci fekk na ba loolu moom jàll na leneen la ñuy waxat am na ci mbooloo mi ñoo xam dañoo découragé woon di xaar moom ay liig yu ndaw rek pour xaalis faat waaye ndekete lam yusibu illa al aafiya jàmm rek ko sa dal dara dara fekk ko ca waaye nag foofu danaa ci tënk ñetti mbir yoo xam ne ñun la ñun ñoo ko moom bi ci njëkk mooy ñu xam ni xaalis lu mel nii du dara ci moom ndax min akaabiri awliya illahi almuttaqin ñaareel bi mooy mujahidun yëpp bu ñu dajee Xaalid nekk seen sang laa sokka ni kon nitu yàlla yi sunu borom mën na leen defal kiimtaan yu mel noonu muy benn ñaareelu tënk bi al imaamu zahabi moo ko wax ci siyar bi mu nekk lee xista ba noppi ca tënk bu am solo mu ni haadihi wallahi alkarama wa haadihi sajaa ne na lii ngeen gis nag tey di ko dégg lu wér la waaye lii mooy karaama mooy tedd nga gi yàlla defal ay nitam waaye nag mooy shahada dëgg nag mooy li nga xamante ni sajaa mooy njàmbaar ñetteel bi li ma ciy teg mooy jàppal ni lii boo ko dégg ak foo mën a toll ci ngëm kenn roy lawu la ko xaalis déedéet roy lawu la ko de gis boo fi gisee posan ngay daf koy jéem a lekk da ngay toppandoo bii moom maa ngi jàpp ni mën na laa bañ a dig nag mën na laa bañ a dig de yëgal ni yàlla subhanahu wa taala defal na awliya yi ay karamaat am na waxtaan wu ñu defoon ci min axbaari salaf wa axlaaqihim su fekkee juum ci turu mawdoo bi bokk na ca benn tomb boo xam ne ma nga tuddoon inna li awliya illahi la karamaat kama anna li awliya shaytaani xuraafaat wa xuzaabalaat wàllu yi yàlla yi sunu borom daf leen dafa ay kéemaan yoo xam ni doomu aadama bu ko dégg jombi ci comme li nga xam ni saytaane yàlla daf saytaane yi dañoo am ay xuraafaat ay naxasaka ndaga gi sagari tën al imam ibn taymiya rahimahullah ci téeréem boobu di alfurqaan bayna awliya illahi wa awliya shaytan boo ca delloo ca bunt ba nga xam ni ma ngi fay lim kéemaan yàlla yi defal ay wàlli yoom ak jay gi suñu waan di jay saay saay saytaane yi lim na fa ak lim bu baree baree bare ci mbir yuy wane ni kat ndeke nit ki su fekkee góor-góor na ci digganteem ak boromam suñu borom dana ko defal ay xeeti kéemtaan yoo xam ne yooyu adduna bi yëpp mën nañ cee jombi lii nag doomu aadama day góor-góorlu ci ak jaamu yàlla ba yegg fenn fi dëgg la nag yegg fenn fi du tax nit ki di ko bàkkoo ak di ko wanee gis nga saa boo gisee ku suñu borom defal ay kéemtaan mu di ko bàkkoo ak di ko wanee yëgal ni ko ko bokkul ci awliyaullah yi déedéet saa boo gisee koo xam ni ay kéemaan a feeñ ci ay loxoom te kookee tegu tànkam ci sunna kooka wàccal mu bàyyi mu dem saa boo gisee koo xam ne fonkul sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak lu mën a feeñ ci ay loxoom bàyyil mu dem waaye karaama kay ba suñu borom da koy defal koo xam ni comme wàlliyu yàlla nga xam ni ku ne war nga mën a nekk wàlliyu ndax nekkul loo xam ni am mbooloo lañ koy jagle wala nit ki day egg ci ay jaamu yàlla du si géetu xool nit ñi bis bu nekk ma ngay woor bis bu nekk ma ngay julli guddi tekkul loolu mooy tax yàlla defal ko nit mën naa nekk ku simple waaye ci jëflante ak sunu borom bu tax sunu borom kontaan ci moom defal ko ay kéemaan kon yooyu yu mat a bàyyi xel la Khalid ibn Walid radiyallahu anhu noonu la continuer ci côté yi Iraq di def ay ubbee tey nag li gën a kéemtaane mooy yaxruju min nasrin ila nasr saa bu génnee ci ndam rek borom bi da koy defal lu mu tàdduwaa rek ndam am ca ba noonu ci la Khalid ibn Walid jot benn lettre bu jóge ci Abubakar Siddiq mu ne ko côté Saam kat dégg naa ne ña fa nekkul ay jullit ñu ngi dal ci kaw jullit ñi di leen xorñinal ak di leen mettital te amul ku ma fa doyloo ku dul yow départal yaag say soldaar nga dem Xaalid daal di jël benn waay bu ñuy wax Musanna ibn al-Xaaris Musanna ibn al-Xaaris nag ka Xaalid ibn al-Walid amaana turam siiwut amaana ñu bari xamuñu ko waaye jàmbaar la woon joo xam ni dañ koy méngale ak Xaalid ibn al-Walid Musanna ibn Xaarisata kéemaan suñu borom la woon joo xam ni daal dafa am ñoo xam ni borom bi daf leen defal ay may ci wàllu xare musanna bi ci la bokkoon ibn xaaris radiallahu anhu xaalid ibn walid dañuy wax ni diir boo xam ni mbooloo mi lu ñu gaaw gaaw gaaw fukki fan ak juróom mbaa ñaar fukki fan war nañ ko koo dox xaalid mi ci juróomi fan lañ ko bëgg a dox cinq jours tey na mu ko waxee noonu la ko defee ndax boromuk dogu la borom bi daal def ci juróomi guddi mu daal di yegg fa nga xamante ni fa la ko Abubakar Siddiq yabaloon keroog bi ko Abubakar Siddiq di yabal wax na wax ju am solo mu ni wallahi la unsiyanna arruuma wasaawisa ash-shaytaani bi Xaalid ibn al-Walid ñu Rome yi dañuy xamadi xamadi lu waaye seen ngamadi googu dinaa leen ko fàttaloo ba ñu fàtte ko te ci Xaalid laa koy jaarale loolu la Abubakar Siddiq waxoon loolu li ko waral mooy rome yi dañoo fitnaaloon jullit ñi ci jamono jooju fitna joo xam ni boo xoolee ñoom seeni soldaar li ko manqué woon million tuuti la woon ci ay nit amaa jullit ñi moom ñi ngi nekkoon isnayni wala isnatayni wa talatina alfan trente deux mille personnes moo nekkoon soldaaru jullit ñi ca la yem amaa yéefari ñoom seeni soldaar li ko manqué millions yi soldaar bariwut Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu Abu Ubayda Amir ibn Jarrah moo jiite woon xare bi daal di yeble ci Abu Bakr Siddiq di sàkku ci moom mu wutal ko ab renfort muy ndimbal mu ni ko fa inna ruuma ahla albaladi wa man kaana ala diinihim min alarab qad ajmacu ala xarbi almuslimin wa naxnu narju annasra wa injaaza mawcuudi rabbi tabaraka wa taala وعادته الحسنة وأحببت إعلامك لترينا رأيك منيكو رمي ak ñi dëkkoon dendeeg ñoom ak ñi nekk ci seen diine ci bokk ci arab yi ñoom ñëpp dañoo dajaloo di fitnaal ak a xor ñoo jullit ñi ñun nag ndimbalu yàlla lañu yaakaar ndax yàlla yàgg nañoo digte di ko def te it aada ju rafet li nga xam ne suñu borom yàgg nañu koo defal muy ñuy dugg ci xare di gañe ñi ngi koy yaakaar leetar bii nag bindu ko pour ragal waaye dama koo bind pour nga yëg liñ nekkee boo amee loo ñuy conseil nga jox ñu ko xam ngeen lan la leen ko lan la jox ci ay conseil mooy li ma wax sànq wallahi la unsiyanna arruuma wa saawisa alcheytaani bi xaalid ibn alwalid yéex na loolu mooy leetar bi mooy rome yi seen ngamadi gi ak seen ñàkk yaru gi dinaa ko fay ba fàttaloo leen ko te ci Xaalid laa koy jaar loolu mooy leetar bi ci la yebal Xaalid ibn Walid mu daal di ñëw ci barab boobu. noonu la Xaalid ibn Walid génnee ci xare boobu ak ngañaay xare yi ci topp kadalik tasa yi nga xamante ni moo fa nekkoon Xaalid daal di koy ubbi ba jullit ñi daal di yëgaat seen doole waaye nag jamono jooju am na lu yàq seen ndaje lu ko xajamal xam nga doomu aadama léeg-léeg day nekk ci ay. bànneex te biir bànneex yi rek benn fenam musiba rek ñëw daal di koy fes yàqal ko lam doon dund si digg ngeen naa yi nga xamante ni jullit ñaa ngi koy nekk rek ci lañ jot benn lettre Xaalid daal di koy ubbi xool rek muy tàggee Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu loolu metti jullit ñi lool ma metti ne ñu yëgu tiit ndax dogalu suñu borom la te lépp lu suñu borom dogal loola mooy li baax waaye nag fa yëpp ya demee woon bay yëkkatiku nag di jëm kaw fa la abubacrin faatoo radiallahu anhu xam ngeen abubacrin sadiq mbokk yàgg ci xilaafa ji ñaari at ñaari at wala ñaari at ak lu topp tuut kon yàgg ci waaye ci biir ñaari at yooyu abubacrin sadiq liggéey na fi loo xam ni xam ngeen ne ku dem ba amee ibnul xataab di ñaan yàlla soppeeku nekk kawar sax sax ci dënd abubakar ak amal li mu am ci ay ngëneel yaa di wax yaa laytani kuntu shaaratan fi sadri abi bakr ak a neexoon suñu borom soppi ma nekk kawar sax ci dënn abu bakr siddiq radiallahu anhu xaalid ibn walid mbokk yi yéen a ngi fàttaliku bii paase la mu waxoon mooy tey de dinaa defar ak dex goo xam ni ah dexu dene tey nag dañuy balaa naa sama xol bee sedd tey li may rey dama kaa naan deret ji laay naan moom moom daal kéem xamsul ba la woon mu ne tey balaa sama xol bee sedd dinaa naan ci seen deret ji loolu nag waxin la tekkul day jël deret ji naan ko waaye lim ci nam moon mooy dana tuuraat deret ju bari tey ndax moom borom bi subhanahu wa taala defaloon na ko taw ci xare loo xam ni moom comme ni ma ko waxee woon ci bind yi paase xaw tuuti kon nga ni moom rek la ko suñu borom defaloon Xaalid ibn Walid ci benn xare boo xam ni yéefar yi ñi ngi nekkoon deux cent mille personnes deux cent mille mooy ñaata ci wolof ñett téeméeri junni ñett téeméeri junni doon soldat si nekkoon benn waaye bu ñuy wax maahaan am ñuy wax baahaan moo leen nekkoon seen général bi leen jiitoon muy taay taay bu bon sax am naa jullit ñi ñu ngi nekkoon sittatun wa salaasina alfan ah trente six mille trente six mille personnes ñee nekk deux cent mille xool niñ soriyoo dafa mel ni xaw tuuti kon mën lañ leen a paacoo kenn ku ci nekk jël sa morom jël jël am mbooloo dem noonu waaye nag yàlla defal na taw fi ay waa Badar ña nga fa nag téeméeri nit yoo xam ne teewoon nañ Badar fekkee nañ xare boobu te xam ngeen ni mbokk yi néew na loo gis ñu nag ay soldaar soo xam ni waa Badar ña nga ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neewoon na ci bisaraat yi ñu doon jox jullit ñi di ngeen xare bu ngeen yëkkatee seen loxo ndax su fekkee yonent bi mi ngi ci mbooloo mi ñu ni waaw mu ne dem leen da ngeen di gañ mu ni ñu demaat xare ba mu yàgg ñu ni ndax ku fekkee jamonoy saxaaba yi mi ngi fi ñu ni waaw ñu ne dem leen da ngeen di gañ ñu demaat ba mu yàgg ñu ni waaw ku gis kenn ci saxaaba yi ndax mi ngi ci mbooloo ñu ne waaw mu ne dem leen da ngeen di gañ ba mu ñetti yoon sallallahu alayhi wa sallam téeméeri nit yoo xam ne teewoon nañ Badar ña nga ca mbooloo ma ak junni nit yoo xamante ni junni mille personnes yoo xam ne saxaaba yi lañ bokkoon ñu deret la ngay ci taabi'u yëpp abnaa saxaaba Xaalid ibn Walid radiyallahu anhu jàkkaarloog Abu Ubayr Aamir ibn Jarraax ci barab bu ñuy wax Aljaabiya mu ni ko wallahi in kunna innama nuqaatilu bil kasrati wal quwwa hum aktharu minna wa aqwa mu ni ko ginnaa ni su fekkee dañoo nar a xeex ci ngir ñu ngi sukkandiku ci quantité mbooloo mi mu ne xamal ni gars yi kon ñooñu ëpp ba fuuf ñu lool tey nag amuñu doole duñ mën a xeex ak ñoom wa in kunna nuqatiluhum billahi wa lillah fama anna jamaatahum walaw akaanu ahla al ardi jamian an tu annakum tugni anhum shay'an xaalis mu ni su fekkee ñun yàlla moo tax ñuy xeex ak tàkk ngërëmal suñu borom mu ni waa kaw suuf li fi nekk ci mbindeef lépp lu ñu soppeeku nekk ay soldats yi yéefar man du ma ragal su ma gëm naa ni ñoo leen di gañe ah te it julit loolu lay xeexee mooy yàlla mooy tax waaye du xool mbooloo mu ni Abu Ubayda benn mbir rek laay tàkku ndax su ma la ko santee di nga ma ko defal rek Abu Ubayda mooy amirul xarb moo jiite woon xare bi Abu Ubayda amir ibn Jarrah al Musanna ibn al Haritha Xaalid ibn al-Walid Suraaqa ibn Maalik Tulayha al-Asadi ak ñii ma lim kenn ku ci nekk kenn rek ku taxaw rek général nga bu mat la nga doon ci buntu xare ah Ali ibn Abi Talib Aqil Jaafar ibn Abi Talib Abdullah ibn Rawaha Zayd ibn Haarisa ah gaa yooyu ñii ngay gis ñëpp kenn ku ci nekk rek ab général nga woon ci wàllu guerre loolu Abu Umayr ni ko su fekkee loolu nga may sant rek dinaa ko def mu ne ko li may sant lan la mu ne ko dama bëgg nga puus ma yow ma jiitu. mais nga xam nga Abu xam nga général bi jiite moom moo war a jiitu abu ubayda comme moo jiitu xare bi xaalid ni ko dama bëgg nga puus topp sama gannaaw may ma ma jiite loolu rek laa lay ñaan mu ni ko loolu rek nga soxla mu ni ko mu ni ko may naa la ko nga jiitu xaalid daal di jiitu radiallahu anhu wa arda mu ne ah xallini bayna alqawm bayni wa bayna alqawm fa inni la arju an yansurani allahu alayhim muy dama bëgg nga dug dug sama diggante ak yéefar yi te nga may ma jàll ca kanam tey de gëm naa ne suñu borom dana ma defal ndimbal avec conscience nag la doon waxee li muy wax ak ngëm-ngëm moo tax suñu borom di ko dimbali noonu la xaalid daal di jiitee xare boobu nga xamante ni borom xam-xam ñu ni moom mooy xare li nga xamante ni moom mooy al yarmuuk muy xare boo xam ne xare la bu metti woon lool ci jullit ñi amma bahaan wala maahaan mu dajale ay soldaaram mu ñu leen antum adadul xasa xasa والثرى والذر فلا يهولنكم أمر هؤلاء القوم فإن عددهم قليل وهم أهل الشقاء والبؤس وجلكم حافل جائع وأنتم من الملوك وأبناء الملوك وأهل الحصول باهان مني yéen samay soldaar yéen yëg leen ni fi mu nekk nii ñi fekk suuf toll toll ngeen noonu ndax dañoo bari xam nga soldaar su jege ni ñoo bari nañ mu ne fi nekk nii ni bi dem toll ci asamaan si yéen tollu ngeen ko ndax bari waay kooku naw na mbooloom mu ne bu leen siit mukk ci gaa yi ngeen jàkkaar lool ndax ñoom seen lim dafa tuuti tey ñoom ñu torox lañ koo ci xool fi nekk ni daa xiif xiif a koy bëgg a rey mais wax na dëgg wax na dëgg de wax na dëgg de koo ci gis julli ñu xiif a koy bëgg a rey seen jaas yi daa xomaat seen xupp yi mi ngi bënn te yéen ay buur ngeen di ay doomi buur tey tata yi gën a mat ci àddina bi nga xam ne ku ci dugg raw yéen a ko moom tey yéenay borom doole yi di borom kattan yi ñaar dong laa soxla ci moom bu leen jàkkaarloog seeni noonu mukk lu dul ñoom dañoo jeex maa ngeen dee ci seen kanam. gars yi dañ koy jéggal de gars yi dañ koy jéggal de ni ngay xiirtalee nit ñi la ci àjjana jug leen ñu dem noonu ngay xiirtalee nit jug leen ñu dem safara ñoom ñu nangoo dem. moo tax Abu Hurayra nan jombi naa ci waa ji ñuy watat di ko jëme àjjana muy bañ te nan déw ma te lan yi saaga mooy yéefar bi ngay xëcc bëgg mu génn sa war a dugg àjjana muy bañ xaalib daal di jàkkaarloog maahaan daal ni ko yéen ñi kat gis naa ni kat maahaan ni ko yéen jullit ñi gis naa ni que ne da ngeen a ñàkk dara ngeen amul xam nga ñoom dañoo xamadi woon nag ñoo xamadi ba xamadi gi jéggi dayo maanaam bu ñu mosaan a dajeeg jullit ñi comme dañuy jàppee daal benn waay bu tiim rek coupeel bu muy foye mu ne ko yéen li leen yëkkati mooy xiif ak mar ak sonn léegi ñi ñuy def mooy kenn ku ci nekk naa ko daggal lu mat cinq cent mille rek may ko ko mu ngeen da ngeen dem ñibbi te bu leen neexee déwén ci waxtu wii ñu toll ngeen dellu si waat kenn ku ci nekk ci seen sol ñaata soldat la jëlu bi rek trente six mille personnes trente six mille fanweeri junniy soldat ak juróom benn ah fanweeri junne ak juróom benni soldaar mu ni bu ngeen bëggee kat te nañ ko waxee man na ko de dañu bari woon alal ba alal jooju moo leen day ñu gën a fuuy gën a xamal mu ni kenn ku ca nekk mën naa laa daggal ko lool téeméeri junni te bu déwénee ci waxtu wi ngeen dellu si waat ku nekk ma jox ko téeméeri junni xaalis daal di reetaan ni ko xam nga lu ñu tax a jóg tey mu ni ko déedéet mu ni ko naan si deret te dañoo dégg ne deret yi waa Rome yi moo gën a neex moo tax ma yàkkam ci mu ni ko naan si deret moo lu ëndi maanaam ji naa li nasraba dima dañoo ñëw pour naan ci deret ah mu ne ko wa annahu balagana anna dama ruumi atyabu min addima mu ne dañoo ñëw pour naan ci deret te yëg nañ ne waaroon la seen deret dina neex a naan ci kaw suuf fa buhita alladi kafar foofu nag ci la maahan daal di jaaxle nag ndax yow trente six mille personnes kenn ku ci nekk ñu nangu laa jox téeméeri junni nga ñibbi te bu déwénee kenn ku nekk ñëwaat ma joxaat la ko ngir bañ ñu xare loolu la loolu la saxaaba waxoon rustum rustum xam ngeen rustum bi mu dajee julli ñi ca qaadisiya saaba bi waqaas yabal kenn ci saxaaba yi allahu akbar bi mu yegsee gaa yi bëgg koo defu caay caay xam nga gaa yi dañoo caay caay bi ñu yëgee ndawal nu mu tuddati sànq bi waxaat mi ngi ñëw dañ ko laal sax rouge maanaam lu tolloog fii ba wetu taliba ñu lal ko benn tapis rouge bu gudd gis nga tapis rouge yàgg na fi de avec saay saay yow yàgg na fi de bi ñu lalee tapis rouge bu gudd gaa yi taxaw di ko teex mu ñëw warul fasam xam nga tapis rouge moom bu ñu la ko joxee aw sax nga xam ni gis gàtt weer yi nga xam ni ma nga ca ñeefare jàpp nga ne ñu jàpp ne moom day ñëw wàcc illa day dox ak tànkam ci tapis rouge bi wa illa boog day day nekk ci jànnate am dox ndax ñoom xam moom jërë jaa ngi xuttee mu yegg ci daal di yéegal fas bi ci kaw tapis rouge bi jël xeet bi di jamaat di jam benn waaye daal di koy xool daal di yéemu ñëw ci moom mu ne ko yee sa yoon nekku ci li may def bi mbooloo mi naree daw song ko rustum ni leen bàyyi leen ko ndax rustum it ku yeewu la woon saay saay la waaye saay saay bu yeewu la xam nga ne léegi da ngay ko xam ne ku xaje la waaye day xajee pare man li muy def nag moom la benn benn waaye doon wax naan looy def rek man ko même booy saay saay man ko rek nga dee yàlla lakk la waaye boo saay saay te mënoo li ngay def ba pare nga dee yàlla lakk la da ngay perte da ngay ko xamante ni ku xaje la waaye dafa jekku li muy def nag rustum ni bàyyi leen bi ñu ko bàyyee ba mu yegg si kenn ci gàngu naay rustum yi ni ko yee sa fas yi lañ bëgg nga wàcc mu ni ko man aw ma soxla ci yéen yéen a ma woolu bu ngeen mëggul ma ñëwee nii ma tourné dem wax na dëgg de moom xam nga ñoo ko wool ndax rustum moo ni seetal leen ma kenn ci yéebal yi ngeen wool ma ko ci jullit ñi saa du yabal kenn mu ni yéen a ma woolu su ngeen amul su ngeen ma woolu woon du ma ñëw rustum yi bàyyi leen ko mu toog fekk ñu ngi teg ay canapé ay kii seen fauteuil yu boot fauteuil yu fauteuil yooyu di boole ñu ne ko toogal ci yooyu mu daal di ko xool daal di koy fallax ni affaire yu salté yi kay dama ciy bañ a toog lépp kay xaar daaj xam nga maanaam loolu mooy jeex nga ndax nit ku ñëw ñu la toogal ci fauteuil yi nga ni ci suuf laay toog mu daal di koy xool nii ba mu yàgg mu ne ah seen affaire yu salté yi dama ciy bañ a toog daal di toog ci suuf gis nga ni mu toogee ci suuf rustum ni xool ko gis nag xam ni benn nit nga ñëw ci ay dix mille personnes yow kenn ak taw fas ak sa jaasi ngay dëf dëf nga xam mën nañ laa faagaagal foofu waaye nag foofu dafa amoon benn sew sew boo xam nit ñi dañ ko bàyyi xel mooy ñoom dafa bokkoon seen doxalinu guerre mooy ndaw kenn du ko rey maam ndaw mooy kuñ yabal kuñ yónni lu guerre bi métti métti métti su dee diw su sûr que dañ koo yónni kooku moom lu mën di def kenn du ko rey loolu ay loi la yoo xam ba tey sax mi ngi dox ci àddina si moo tax bu ngeen seetloo léeg-léeg am na yenn ndaw yoo xam ne dañ koy yabal ci digg guerre ci guerre àddina yi dañ koy kidnappé téye ko wala ñu ni bu ngeen deful waaye rey en général boo gisee duñ ko def loolu ay loi la yoo xamante ni comme li am xam wax atawaasaw bi si man mu xaw mu baaxul dañ koy doon naan rustum commencé bëgg a def ay négocié négociation di wax ak moom bi mu commencé kon mun kenn moo tax bu njëriñ ñi da ngay doxal yaa ngay xam ne ngëm daal sëñ bi mën naa def loolu ci lu ne moom kenn rustum naan ko waaw est ce que da ngeen du ngeen du ngeen bàyyi léegi xare bi ngeen dem ñu toog mu ne ko déedéet ñun dañoo safa xeer dañoo safa xeer moom kenn la de mu ne ko ñun dañoo safa xeer rustum ni bëri jug fi mu toog xam nga dafa am yoo xam bu ko nit waxee da ngay ci da nga kii dafay xaar wala lu ko dal mu ne ko yéen bu ngeen bu ñu bu ñu defee benn ngoon rek ma faagaagal leen yéen ñëpp waa ñu ne ko da ngay kàcc jullit ñi ne ko da ngay kàcc ñu ne ko da ngay kàcc nag rustum daal di mer jug taxaw ci mu jógee taxaw mu ne ko ma dolli la ci leneen mu ne gis nga yow tàppet doo nga la jàpp mu ne ko sa buur ba mu la yabalee dafa ba wax nga ñëw xare sa négociation yi ragal doo nga tax ñëwul ñu xeex kenn ñëw de gis nga rustum looloo ko tax a song de rustum da doon wut ay buntu pour te rustum konkal la woon waaye da doon wut ay buntu pour génn waaye nag léeg-léeg li may faral di wax gis nañ nit nit baaxul nit day tax nga def loolu na tëwal def bi ne ko ragal nga bañ a dee rek tax ci la rusum ni su ma ñëw sonk si la mu ne ko loolu laa doon wut si la kampaat aw filam daal dem dàq aw fasam kon yu mel noonu jullit ñi yàgg nañ koo def mu nekk ay ay ay ndikte yoo xam ne jullit ñi dañ ko doon am moo xam ci jamonoy Umar ibn Xattaab moo xam ci jamonoy Abu Bakr Siddiq xam ngeen xaadise boobu may nit ni ci xare yi gën a métti ci xare yi la bokk ci xare yi gën a métti ci xare yi nga xam ne jullit ñi xare nañu parce que gis nañ ci ay kéemtaan loo xam ni néew la luñ ko daan gis ci xare xam ngeen ni xaalis yi jullit ñi dañoo defoon benn benn mbooloo moo xam ni yéefari dañ leen nax xam nga nuñ leen naxee dañoo bàyyi ba xare bi départ ñu dug dugal ay ñay ci biir ci biir xare bi xam ngeen fas dafa ragal ñay ah bi nga xamante ni ñay yi dugg si nañ rek fas yi dañuy tiir rek fëppatal di daw moo tax bis boobu def nañ jullit ñi loo xam ne lu jéggi dayoo la waaye bi sa am bi wax Fass jaaxlee kenn ci saxaaba yi la woo ku ñëw mu ne ko am naa benn stratégie mu ne ko ron la mu ne ko bu so bu ñay yi dikkatee rek xam nga ñay yi ñoom dañuy defar benn ñay ñay wu mag jël kees boo xam ne maanaam def fukki nit ñi teg ko ci kaw ñay yi mu ne ko da ngeen di fexe ba rooku ci ron xarantey tànk ñay yi ngeen dagg buum yi xam nga kees yi ñu ngi ko takk ci ndiggal ñay yi bu ñu daggee buum yi ñay kees yi lii ci foofu ca lañ jaar ba ci buntu boobu ci la yàlla soo dala defal li nga xamante ni moom mooy an nasr wal fath ñu daal di gañe li nga xamante ni moom mooy yéefa yi ci ngañaay loo xamante ni taarix du ko fàtte mukk noonu kon xaalid ni ko xayra anna qawmun nasrabu dama ñun ay it lañ yoo xam tey dañoo bëgg a naan ci deret ci la maahaan nag daal di jot nag woo ay soldaaram ñu ñëw kas sayli wal lay subhanallah soldaar soo xam ne xam ngeen ni soldaar su jege million bari nañ lool gis nga bi ñuy ñëw dañoo mer ba xam nga lu ñu def garabu dégg gu ñu romb rek borom garabu dégg yow yaa ngi jaat yaa ngi fet yaa ngi xeet waaye pour wane ni tey naruñ jàmm suñu rombee kàdd gor ko xam ngeen ci garabu dégg yi déeg sëmp xoolal ci naa si déeg ah Dakar ngeen dëkk gis nga garab yi léegi ni mu bare garab bu ñu romb rek fàq ci ay car lan moo gën a metti nga jël garabu dégg ak taxas ni ko tay ci kanamu nit waaye nag loolu dañoo foogoon ne buñ dikkee day tiital julli ñi fekk lii tiitalu leen bi ñu jiitoo Xaalid ibn Walid seen leen ñuy ñëw gis nga Xaalid bokk na ci li ahlu siyar di nit lu kéemtaane la mooy xeex bu nekk ak stratégie guerre bu ñuy tëral ku ñëpp xam fa nga jëm doo yegg gis nga Xaalid xare bu nekk rek day génne benn système bu bees gis nga bu tay bi nan la def bu tay bi dafa séddale comme am nañ trente six mille personnes ñu ne léegi nañ ko séddale ah ay karadis karadis ci arab mooy ay mbooloo yoo xam ni mbooloo bu nekk ne ay côté mille personnes wala lu ko jege wala sax mën na kaa bañ a man mbooloo mi mbooloo mi amaan na mën naa nekk waa dëkk sàngam ci misaal bu ñëwoon dëkk sàngam ñëw nañ ñu ne nañ leen benn ñu nekk benn mbooloo ñu seet ka ci gën a nekk kilifa def ko mu nekk jiite mbooloo moomu façon boobu la Xaalid séddalee soldat bi séddale ni woo xam ni te xam ngeen nit di xeex ak kim miin maanaam soldat mbooloo mi nga xam ne moom nga àndal nga miin leen xam ngeen te ngay gën a sawaree ak mbooloo moo xam ne ñu ne leen xamoo leen doon te yéen a bokk nekk ay julit gis nga façon la boo xam ne keroog lañ doog a gis Xaalid def def bu ni mel radiyallahu anhu wa arda Xaalid ibn Walid daal di jékki-jékki rek kabar allahu akbar daal di hubbi riyaax aljanna yow ngelaw li jóge àjjana commencé upp ñun ñu ngi tàmbali allahu akbar ngelaw li war a jóge àjjana mu ngi commencé upp ñun ñoo ngi tàmbali noonu soldat bi def li ñuy tuddee tempo tempo daal di layee waaye day bada lahum min almuslimina ma lam yakunu yaxtasibun ak seen soldat li muy bari bari bari ak jullit ñi li ñuy néew néew néew keroog daj nañ ca biir xare ba ca jaabiya loo xam ne li wolof yi nan mburu daju ko ci taal kon de loolu métti na abu ubayda amir ibnu jarrah ne na man keroog laa jommi jomet abu ubayda mooy nekk li mu ni keroog laa jommi jomet mu ni dama toog ba mu yàgg rek benn waaye ñëw ni ma fëkk fëkk ci côté mbagg ci ginnaaw ma geestu mu ne ko mu ne mu ne ko hee boo amee looy yóbbante yonent bi wax ma ko gaaw maa ngi dem allahu akbar xoolal xoolal maanaam ñoom ci nit ñi bopp seen siira ay mbir da caa ne yoo xam ne yow da nga koy xool ba mu yàgg da nga naan est ce que lii sax lu ay réellement lu am la fekk lu am la de fëkk fëkk ba ma gestu mu ne bu amee loolu yóbbante yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko gaaw damay dem mu ne ko boo dem mu ne ko damay am shahada léegi ma yem ajara laa jëm nee na ma xool ko xool xool xool ba mu yàgg ma ne ko boo demee ne yonente bi lam nu diggoon lépp doo ko faam waxoon nu ko lépp gis nañ ko nu ngi koy sant nu ngi koy gërëm ñu ngi ci waar bi nee na ma gees bi xool kan la xam ngeen kum doon Ikrimata ibni Abi Jahl subhanallah yàlla day yuxrijul xayya min al mayyit suñ borom mooy fekk garabu guy comme nu ko wolof yi waxee garabu kàdd garabu nu mu tuddati ndig mu jur guy xam nga dig buy sax dig dig buy ju def cari cari buy moom jaaxal na doomu aadama yëpp mooy yuxrijul xayya min al mayit xoolal Abu Jahl aada aadaay islam ci gën a bon ci noonu islam yi ah tey doom mooy def jëf ji muy Akrima Akrima ibni Abi Jahl te xam ngeen ne Akrima ibni Abi Jahl moom ci général yi gën a màgg ci xare yi la bokkoon nee na noonu rek ci laa seen waa ji bi ma tàggoo ba noppi nit soo amee loo yóbbante yontu wax ko damay dem damay yàkkam damay dem fulla lañ ciy àndal joo xam ne da nga xam ne kii dafa toll ñu ne maa ngi ko seen mu taxaw di yëkkati loxoom ni képp koo xamante ni da ngaa bëgg a gont fanaa ne allah kay tey nañoo topp sama gannaaw xam nga loolu dañ koy def man yu bàyyi ani lil mawt kan moo ñëw jaayante man pour ñu dem dee léeg-léeg nag façon boobu nag léeg-léeg suñ ko am def day fekk xare bi nit ci na xam ngeen am na benn waay bu ñuy wax barra ibni maaruf bokkut ak barra ibni aadib gis nga barra kéemtaanu sunu borom la woon soo xam ni saa bu jiyee ngir def dara rek sunu borom suturaal ko ca loola moo tax keroog bis bi muy faatu bi muy faatu xare bi metti lool saxaaba yi jaaxle lool ñu barra tey nga giñ ba ñu am nga ñëw suñu borom barra daal ni giñ naa ci yàlla tey ñooy gañe waaye nag yàlla may man man maa bëgg njëkk a dee naa njëkk a dee man tey lañ gañe waaye maa njëkk a dee kenn ci saxaaba yi nee na ba mu ko waxee laa ni kii moom nañ ko wutal perkal pare na ndax saa bu musaane giñ lu mel noonu rek moo tax yonent yàlla bi ne am na ci jaami yàlla yi ñoo xam ne seen jokkoog seen borom seen dëgg yegg na koo xam ne bu ñu giñee rek suñu borom dana leen defal lañ giñ loolu nag gerte maag koo naan mooy diwag wala ku gën a dofe nag mooy koo naan man la yooyu moom moom daanaka moom ay benn benn rek am dafa ay qualité yoo xam ne tey amatu xool lu mel ni wóor tey kenn wóorutu kenn wóoru Xusayfa nee na bu njëkkoon man ku ma neex jëflanteeg moom ndax ñëpp a wóoroon waaye jamono ngi ñëw joo xam ne da nga naan gis nga boo demee kaw la sa wetu gaaraat ma sa famille baay diw ñëw am na kenn ku wóor ku fa nekk mu ne soo soxlaa tey da nga naan da ngay dem ba Casamance muy noonu la ñuy tànnee ñu wóor yi wallahi xasee sa wax na dëgg tey tey boo doon tànn ñu wóor boo demee région bii da ngay demaat beneen région doo ko tànn kenn ku wóor gis nga kon Ikrima ibn Abi Jahlin mu ni man yubayi'uni ala al-mawt kan mooy ñëw jaayanteeg man pour ñu dee mbooloo mi commencé ñëw ndax am na ñu ngëm-ngëm léeg-léeg nag da ngay gis koo xamante ne xëy na moom nag wax dëgg yàlla pareegul pour dee léegi am na koo xamante ni xëy na loolu convaincre gu ko am na lu mu bëgg leneen ci ngëm ci ngëm yàlla ak liggéey lislaam waaye ay téeméeri téeméeri nit di ñëw di topp seen ci ginnaawam mu ni leen nag comme jaayante nañ dañuy dee ba nopp moom kenn ku ci nekk moom pareel ci àddina léegi ni ñuy def mooy xoolal leen bañ seen ban côté xale yéefar yi gën a bare ñu daw dugg ci seen biir loolu moom ko yow loo am jël maa ngi sànni lu ma am jël kooku moom kay dem moom parewul pour dellu si moom kay naara yi la may lay doog a leex waaye ay dellu si moom parce que bàyyi alil mawt gis nga am na jamono ci baytul maqdis ah jamono bi nga xamante ni jullit ñi nangu nañ ko yéefar yi nangu nañ ko ci jullit ñi nanguwaat ko am na benn xare boo xam ni ki ko jiite woon xam nga lu mu def dafa digaloon soldat su ñu leen seen yére yi ngeen sàngoo ay perka maanaam jullit ñi bi ñu doon dem ci xare bi mu ni kenn ku ci nekk defal say bokkutaan parfum bi ñuy def booy dem àllaaxira te nga sol ay perkaal pour ñu dem xare ji c'est-à-dire que mooy li ñuy wut nañ ko jot wala ñu paas loolu nag loolu ngëngëm bu kawe la bokk de mi ngi nii sama kanam ak ni mu métteeg ni mu naqaree jabar ji fi nga koy bàyyi doom ji fi nga koy bàyyi alal ji fi nga koy bàyyi jumtukaay bi dund gu neex bi lekk gi lépp waaye nag xam na ni ku xam ni fa nga jëm a nar a daax tey vraiment loo bi defati loolu question da ngëm-ngëm la ki nga xam ne gëm na ni fa mu jëm moo ko nar a dàqal fi mu jógee laa sokk ko ko dafay sawar ci dem waaye ñun sawar ñu leen de wax ba ibni mu nabbih benn waaye ñu ne ko waaye ñun lu tax ñu bañ dee mu ne xanaa dañoo meuble fii nëbal fa ne ah aka wax dëgg ak yow kenn ku ci nekk ci ñun defal nga fa mu fa nga nekk ba mu jekk ba nga xam ne yow bëggoo faa jóge xam nga ni kay wax dëgg yàlla kër goo xam ne sàkkeen yu fënat yoo xamante ni xorondam yaa nga fa melentaan yaa teen yaa yooyu xam nga ni wax dëgg yàlla doo bëgg génn ci ab hôtel ba étage di ba duggi muy dañoo meubale fii ba mu jekk nëbal fële moo tax tawaruñoo dem noonu yàlla dafa leen tawfiq mbooloo ma daanaka mën naa ni yépp illaa qalilan dañoo am shahada keroog waaye nag jullit ñi ñoom ñoo gañe jullit ñi ñoom ñoo gañe ak avec avec ngañe loo xamante ni xam nga nit ki mën ngaa gañe fekk gañe bu simple nga gañe mooy gañe nga nii rek par gañe waaye gañe boo xam ne da ngaa duba sa noonu ba nangu lam jotoon a yoraale andi am benn waaye bu ñu jàppaale ci soldat bi bu ñuy wax George George ci généralu yéefe yi George moom li mu yegsee ñu jàpp ko am na sens bi mu yegsee dafa tuub dugg ci lislaam bi mu demee ba gis loolu kat mu xam ne xel lii mooy ndimbalam suñu borom dafa tuub dugg ci lislaam waaye moom nee na moom bala muy lijjanti ay nu ñuy jàppee nu ñuy jullee nu ñuy wooree moom benn laaj la bëgg a laaj mooy xaalis ndax daa am jaasi ju wàccee ci asamaan yàlla jox la ko wala déet loolu lay laaj mu ne hal anzala allahu ala rasulikum sayfan aataahu xaalid ndax yàlla daa wàcce woon jaasi ji bàyyi ko ci asamaan jox ko yonente pour mu jox ko xaalid mu ne xaalid déglu li mu wax xaalid mu ne ko yaa xaalid usduqni wala tukadibni fa inna alxorra laa yakdib allahu akbar yéefar buy doog a tudd laa yaarif min alislami illa isma wala min alqurani illa rasma loo xam ci lislaam mu ne xanaa turwa loo xam ci alquran mu ne mbind mi li muy ñuul ñuul xaw ma ci dara xam ko xamu ko dara mu ni ko xaalis dama lay laajub laaj wax ma dëgg ndax gor du fen subhana rabbil ala mbokk yi xoolal lii gor du fen al xurra la yakzib gor du fen subhanallahi al azim kon yéete yéete maanaam fen mbokk yi dafa bon bona bona bon ba nga xam ne li yéefar yi yéefar bi dafa saay saay mi ngi njaaloo mi ngi def lu bon mi ngi ay jullit ñi ah mi ngi mi ngi def saay saay ngele bu nekk mi ngi koy def waaye fen moom dañoo jàppoon ne gor du ko def gor du fen subhaana rabbil aala tey gor yi laa xam fen moom sax ngay wax fen dafa dem ba léegi jullit ñu lu simple la ci seen ci seen dund gor du fen xoolal hind rek ba ko yent bi ne yàlla nee na wala yasriq na wala yasniina dafa yuuxu mu ne wa hal tasbil xurra yàlla nee na jigéen ñi bu ñu jaayante ñoom bu leen jàpp dara bu leen def nangam bu leen njaaloo dafa yuuxu mu ne yent mu ne gor gor nudrati gor buy njaalo gor dina njaalo loolu ko laaj gor awa tasbil xurra ndax gor dina njaalo kooku bu ñëwoon fii suñu jamono tey xanaa day dee day dee yéefar la buy doog a tuub tey la doog a tuub jaayante ak yéen façon hind moom moo tawaroon ñu rey Hamza mu ne awa tasbil surra ndax gor dina njaalo waaye fii mu ne ko ndax gor dana fen mu ne ko wala tuxaadiani fa inna alkarima la yuxaadia bul ma wor tamit ndax ku tedd du ma sa wor tedd nga ku ko am même bu dee yéeféri doo doo wor man dafa am ay melokaan yoo xam ne gis ngeen Abu Sufyaan ba mu ne lillaay bu dul woon ak gor du fen tey naa fen najaa si fen woo xam ne garab yonent bi dara ci tax te booba dugagut dugagut ci lislaam kon yooyu moo lay wane ay jikko la yoon yu noble yu baax yoo xam ni yéefar yi sax dañ ko doon am kon jullit yoon taxut di wax Xaalid ibn Walid ni ko man day yooyu yëpp nga lim duma ci def benn waaye nag li am daal ma di la ko nitali mooy yàlla dafa yabal ab yonentu bokk ci ñun am ci mbooloo mi ñu ko topp am ci mbooloo mi ñu ko bañ mu ni man ci mbooloo ma ko bañoon laa bokkoon jaloo rek caay-caay bu nekk nag def naa ko ma xëy xëy rek bëgg a bañ rek suñu borom roob leer gi ci sama biir xol ma tuub dugg ci lislaam mu ni ma duggee ci dugg ci lislaam yonent bi ci la ma tànn ni ma yow kat jaasi nga ju yàlla bocc ci kaw yéefar yi mu ni ca laa commencé mel ni ma mel mu ne ko lii da la mbir mi demee waaye nekkul ay jaasi yu wàcc ci asamaan wala yoo xam ni yàllaa koy wàcce wala déet loolu amut noonu benn waaye ci jullit ñi daal di dajeeg ñoom ci beneen xare bi ñu gisee noon yi bari lool mu ni ma aksara ruuma wa aqalla almuslimin tey suñu adversaire yi bari nañ de ci jullit ñi tuuti nañ xaalis ni ko tuub bu ma ko déggati da nga naan ma aksara almuslimin tey jullit ñi dañoo bari trop suñuy noon tuuti lool mu ne ko xaalis bi sama borom yoon ci ñox mu ne ko gis naa leen kay waaye mbir mi nekkut ci mbirum quantité quantité noonu la waaye mbirum qualité la maanaam mbooloo mi kam min fiatin qalilatin galabat fiatan katira bi idnillah mbooloo yàgg naa tuuti not mbooloo mu bari lool waaye ci kàttanu sunu borom lay doon subhanahu wa taala Xaalid bin Walid booba borom xam-xam yi dañuy wax ni mi ngi fekkoon am na benn fas wu mu doon war wu ñuy wax al asqar fas la woo xam ne xam nga ñoom kenn ku ci nekk da ngay am fas woo xam da lay miin lool nga miin ko Musada ibn al-Harith amoon na ko Khalid ibn Walid amoon na ko ah Sa'd bi Waqqas amoon na ko xam ngeen loolu waral Sa'd ci biir Qadisiyya xam ngeen ci biir Qadisiyya dafa amoon benn waaye bu ñuy wax Aba Mihjan da doon naan tàngara Abu Mihjan loolu lu wér la lu am la loolu napp la ko suñu borom teg ndax nit ki moom kenn ku ci nekk suñu borom dana laa too bàkkaaram lay la too abu mihjan nit ñi dañuy nekk ci xare mu naan ba ñu tax li tara sarati ci ci saxaaba yi la bokkoon waaye nag bul fàtte di bàkkaar la bàkkaar la de teewut ba yegg fa mu yegg rek donte bon na Amar ibn al-Khattab Sa'd ibn Waqqas dañ ko daan jàpp taw ko ba nga yaakaar ni taw yii bu ëllëgee du naanaa waaye bu ñu xëyee suba rek ndeysaan mu mel ni daal affaire bi daal xam naa ne nag nattu yàlla daal dëgg dikkal na keroog bi ñu dem Qaadisiya fekk Musanna ibn al-Xaaris dafa faatu soxnaan su ñuy wax salma salma wax xas takk ko waa ji naan ba ni takk jóge fa naan ko waaye nit ñi ñëw pour xare nga ñëw pour takk jabar yow xanaa xare diw la di nga de ci digg moo noonu ndeysaan xali koy boole ci gaay ñu jàpp ko tëj ko seene ko waaye biñ ko seenee ndeysaan mu toog ba sàngara si gii mu dégg fas yee neexal nag ndeysaan mu commencé jooy mu commencé mu ni man ku toll ni man gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nekk saxaaba di sàggan bay naan sàngara bañ may yeew man maa bon man maa saay saay di wax ba ma wax yu ndeysaan di jooy soxna yi saad ni waqaas ñoo ko dégg daal di ñëw fekk ko fa mu nekk bi mu yegsee ñu ne ko lan la mu ñaan leen leen lenn rek la bu leen ma expliquer sax lu gudd dama bëgg rek ngeen yeewil ma fasu saad dama bëgg ngeen yeewi ma ma dugg ci xare bi xare ee ñu ne ko loolu moom mënuñu ko saad moo la yeew ndax da ngaa naan sàngara kenn du la yeewi fenn ci soxla yi ni man ñi ma naa jël risque boobu mu ne ko waaye nag da ngay jaayanteeg man bu xare bi jeexee boo deewut nga dellu siwaat yeew sama mu ne ko insha allah biñ ko yeewee ba nag mu ne fas yi dem nañ mu ne fasu saadu laay tàcc fekk saab dafa feebar dafa amoon ay taab foofu nag foofu la xam nga loolu jigéen ñi dañ ko nangu parce que bu jëlee fas saada day feeñ waaye dégluwu leen sax mu dem ci ginnaaw rek yeewu fas saada rek kaalaw war ko daw saada mi ngi nekk ci kaw montagne yu di superviseur xare bi pour wan lañ ne kenn ku ci nekk da nga doon yor fas woo xam da nga ko doon leen saada dafa jékki-jékki rek mbooloo maa ngi nekk ay kilomètres mu ni fas wu li may seen saaba kon ci ko war comme doon te fas yi bari na lool waaye fas yi ñuy bari bari mi ngi seen fas wuy tëb ak nag ndax kenn ku ci nekk dafa am noo doon jàppee saw fas entraîné ko ba fas yu ñemee xare nga xam ne lu jaati yi bari bari fas yu daw parce que dañ ko mooy léegi defe naa gis ngeen gis ngeen fas yu politique léegi da ngeen jàngal loo xam ne comme seen yëf yu bon comme dañuy fekk comme lu ñuy def gis nga saad nee na fas yu fas saad la waaye problème mooy ki war ci kawam kan la ndeke waa jaa ngi def ci biir xale bi jaroo la yoo xam ni allahu akbar kenn daan suñu borom la woon yàlla dimbale ko ba xaadisee ji yax deewul gis nga bi xare bi àggee mu ànd ak ngor gu mat sëkk delloo ci waat boppam ñu yeew ko foofa bi mbooloom yeggee li saada njëkk a laaj mooy waaw ci ma séenoon mu war saafat kum doon biñ nee ko abu mexjan dafa tiit mu ne loolu mënta nekk abu mexjan naanam sàngara wa yeew ko woo leen ma ko mu ñëw biñ ko wooyee mu ñëw abu mexjan daal di koy xool mu daal di koy xool mu ne ko yow yaa waram saafas mu ne ko waaw mu ne ko giñ naa ci yàlla bu tey jàllee même boo naatee sàngara du ma la dóor ndax kontaan abu mexjan ni ko giñ naa ci yàlla bu tey jàllee kenn du ma gisati ma naan sàngara saab daal ni ko fas wa nga waram far man naa ko may mu ne ko da nga may rusloo su boo am ne ko jëlal rek mu daal di jël fas wa dem kon kenn ku ci nekk ci ñoom daa nga am fas woo xam ne da nga ko doon tàggat ci buntu xare waaye keroog xare boobu dafa fekk xaalis fasam bi dafa am benn sox ci tànk bi mi ngi am lu ko métti lool ndax xam nga ni fas mi nga xam ne moom nga tàmmee xare moom ngay gën a jekkoo ci say noonu que weneen fas borom bi subhanahu wa taala dogal xaalis jël weneen fas yéefe yi daal dajeeg robe yi ci beneen xare bokku tëg ma doon waxtaan ala kulli xare yi nga xam daje nañ ko bari na lool xeer bi metti lool ci seen diggante ba jullit ñi mujj daal di gañe ñi nga xam ñooy seeni noon ñu war a ñibbi xaalis sentir ni mbaxanaam felt ni mu soloon dafa naaw mooy sengaade dafa naaw mbaxanam moo xam ni dafa fënaxa fënaxa yàgg yàgg ba nga xam ni koo ko may sax du ko jël xaalis ni du ñibbi lu dul mbaxana mi daa feeñ mu ne mbaxana mi moom du ma bouger mètre lu dul mbaxana mi wëral leen ko xam nga xam nga benn waay bu réer la yëf yu ñàkk fayda teg ci bakkanam ni balaa muy dem faaw mu feeñ lu sa xel di def am na lu tene am na lu tene ñu wax wax wax xaalis ni meetar du ma ko buuse na ma xam ne mu génn gars yi di ko wër di ko wër ki ko njëkk gis nee na man ni ma ko gisee ma xam ne ni mu xomaajee ni mu màggatee te jamono yonent bi yàgg yàgg du ma bëgg a dee ma ne xaalis lii la ñu xaalis di sànnee lee kay ma ne ko waa xaalis billahi alayka xaalis yow maxanam yi nga xamante ni koo ko may sax du ko jël lii dafa jar di ñu sànneel xa maxanam maxanam lan la mu ne ko keroog fatxu Makka yonent bi daa watu woon sallallahu alayhi wa sallam li mu watoo saxaaba yi ñëw di séddoo kawar gi bi ñuy wat jubu bi mu naafiya bi jubu bi fii la na saam bi naafiya naafiya bi mu koy wat mu ne maa yegg ni ko perfit jël ko yonent bi gis ko daal di kontaan lool muy ma jël ko root ko ci biir maxana bi yonent bi gis te waxuma dara maxana mi musuma koo sol dem ci xelal dul maay gañ ci duma ko bàyyi ah loolu am na defaan de imam ahmad ibn hanbal keroog ca mex na ko xalaqul quran bañ koy dóor dóor yu metti ya dafa jékki-jékki génne ci sër bi fi mu bebaroo xam ngeen bebaroo ndaw nga xanaa war a ñoo xam bebaru ko amul sénti sa ñoor baaxul xam ngeen bebaru ah fi mu bebaru nii ci ndigg li mu ro- rocc ko daal di génne benn mbuus daal di koy fóon delloowaat ko ci amir daal di wax ni nañ bàyyi dóor yi ñu bàyyi dóor yi ñu ne ko lii lan la mu daal di koy génne ndekete ab mbuus la bu def ak tepp ci kawar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne maa ngi koy fóon ngir fàttaliku metti di yonente bi doon daj ak taabi'uun yi ak saxaaba ya ngir man lu ngeen ma dóor tay ci ay metti dinaa ko muñ ki ko doon dóor mu ni billahi dóor yi ma ko dóor mbaam moo ko dóor mu dee waaye ahmad doon ko muñ xam ngeen loolu ay at dóor yi métti na métti waaye boo xam ne ay at ñu ko koy dàmpal imam ahmad ibnu hanbal fa la jëlee nag laqabu ahli imam ahli sunnati wal jamaa waaye mbokk yi xaalis ci boppam ci wàllu sellal nag boo ñëwee am na ci borom xam-xam yi ku mel ni ibnu asir ñoom ak ñeneen dañuy wax ni ci biir maarakatul yar moom la am ñu ni feneen wa ala kulli abubakar bi faatu na omar yéeg na omar bi ñu yéegee dëkk la yi njëkk a génn bokk na te mooy kool ni xaalis xam nga loolu maanaam Omar moom du ci du ci déggoo kenn li tax du ci déggoo kenn muy jamono jooju jullit ñaa ngi jóge ci ngañe jëm ci gañe waaye Omar daal di bind benn lettre ni lettre bi bu yegsee xaalis kolli naa la toppal ci ginnaaw laa wax xam nga Omar nag lay sant dafa tàngoon tàng bu jéggi dayo waaye tàngoor wa nag avec ngëm yàlla ak di def lu jub nag di jàpp mukk gis nga pour wan la nit ñi ni ñu eggoon ci ngëm yàlla ak sellal bu doon ñu nag wallahi boo nekkoon généralu guerre bi lettre ñëw ci digg guerre bi ñu ne folli nañ la tawarte ngir ama dootu ko amati wax leen ñun ñëpp nañ wax kun doonoon ci ñun ak ñu ñu jiitu woon nga nekk généralu guerre liggéey liggéey bu rëy ñu dikk ci biir ci ne la yow kat dindi nañ la nekkatoo général nañ dinañ laa mere yu demee noonu da ngay découragé dootu mën naa am sax nga taboote xare waaye mbokk yi xaalid daal di abu ubayda te comme yow lañ fal man nañ folli amul benn problème jëru sax ñu naan nit ñi fal nañ fii folli nañ kee ndax maa ngi ragal bu ñu ko waxee nit ñi nit ñi dañuy découragé xam nga lan la affaire bi na continuer mel ni mu doon mel falu naa kolleeku naa yépp du suñu yitte nañ gañe rek mooy suñu yitte allahu akbar lii nag moom la kenn ci borom xam-xam di wax ni lii mooy aynul ixlaas mooy dëgg-dëgg sellal ndax li maa jiitoo dañ maa jiitee yooyu yëpp amul solo li am solo mooy mbir mi sama loxo la jaar ak loxol diw la jaar amul solo li am solo mooy fañ doon bëgg a yegg nan fa yegg ñun nag lii suñu problème mooy da ngay bëgg mu jaar ci sa loxo ndax ëllëg ñu dina ko bàccee dafa ngeen loolu sell na yooyu kon ay mbir la yoo xam ne Xaalid daf ko sori woon radiallahu anhu wa arda te xam ngeen ni kii kat ci mbooloo mi nga xamante ni yonente bi alayhi salatu wasalam yaram na leen mbirum falak folleeku loolu nekkuloon seen yitte Xaalid ibnul Walid radiallahu anhu dañ koo laaj ban bis mooy bis bi nga gën a kontaan ak bis boo xam ci nga gën a mer mu ni giñ naa ci yàlla bis biñ ma waxee sama soxna am na doom ak bis biñ ma mayub féet moo bis bi ma fanaanee tawte te su ma la war a xëy song suñuy noonu giñ naa ci yàlla ñoo bokk yam ci ma loolu moom jàpp mu ni kenn dina ko ci jéem sax roy roy lu noonu loolu lii moom yàpp jàpp naa ni ku ko wax ku nekk yaa ngi wax bëgg a wax lu amut nag moom bis biñ lay wax amayub féet ak bis biñ lay wax sa jabar am na doom nee na moom bis bi mu fanaanee tawte te suba la war a xëy dajeeg ay noonam nee na ñetti guddi yi ñoo bokk yam ci moom amul benn guddi bu gën a neex borom ba xam nga lu ko waral liñ ko laajee ban guddi bi gën a am mbégte mu ni guddi gi mu fanaanee taw ci sama kaw te suba laa war a xëy dajeeg samay noon te du ma nelaw maanaam ne jamono ji dafay xiir dajeeg noon yi xam nga nit buy def loo xam ne da kaa jekku da koo man day am sawarte kontaan loolu moo ko dalal moom Xaalid ibn Walid radiyallahu anhu wa ardaa mu ni maa min laylatin yuhda ilaya fiha arusun ana laha muhib ahabu ilaya min laylatin shadidati albardi kasirati aljalid fi sariyatin usabbihu fiha alabd bis biñ may may jiit boo xam ni bëgg naa ko lool mu ni guddi googu ak guddi gi nga xam ni mi ngi sedd guy wala muy taw ah di fanaanee sotteeku sama kaw ma war a xëy dajeeg samay noon nee na guddi yooyu ñoo bokk yoon ci man gisuma ci différence loolu nag yëg-yëg bu kawe la waaye ngëm yàlla goo xam ne jàpp ne da ngay déglu dars bi rek ba pare am ko déedéet yow dew noonu de lii dañ koy togg di ko baaral di ko bàyyi muy yàgg nga di ko togg muy ñor nga di ko ma kere nga yegg fa nga jëm moo tax am na yooyu comme may faral di def mbokk da ngay dégg ñu wax ci xiyaamul lay rek di jugi di nga ne tay tay tay faw mu julli fu kër ak naa du sotti de yéen du sotti de ay raabi adaran faral di julleeg ay jiw daran nangam d'accord boo ko déggee faral pour roy ko waaye nag dara xëyul xëy sotti de maanaam mbir da ngay commencé def ndànk par ndànk da ngay dem ci guddi gi nga ne yow daa wa julli guddi daa wa def daa nga bëgg a jug tey trois heures du matin taw nga jug julli guddi gi lépp lépp lépp lépp tey tey tey nga bëgg commencé mu sotti tey tey tey la ngay def di yegg mbaa bu yeggee da ngay tànn fajar jàkkale ndax da ngay tëdd rek dee xaar mbaa boo xëy doo liggéey kon yii yi société yu bari ci ñun suñ ko xamee après dañuy échec mooy fan war a jaar ba yegg fa da ngay gis nekk ak benn waaye mu raw la ci jaamu yàlla sàngam nga ni suba suba ma toll ak moom fekk déedéet du noonu de am na yoo xam ni kala ca raw xëyul woon raw la ca waaye da doon tàggatu ba yegg ci barab yooyu kon Xaalid ibn al-Walid radiyallahu anhu ginnaaw ab diir bu yàgg ngi nii boo xam ni min nasrin ila nasrin wa min fathin ila fath jóge ci ndam dem ci ndam ubbi dëkk dëkk ci dëkk dem na ba mboolem kuy njiitu yéebar ci àddina bi waxuma la xam nga xaalid waaye boo déggee turam sax da ngay ciit wa haa huwa al yawma yanaamu ala firaashil mawt mu dund dund gu yàgg goo xam ni xëy na benn bis rek lay saan la bëggoon amu ko mooy dee ci xare tey mu ngi tëdd ci kaw lalam fa la war a faatoo ginnaaw dund gu yàgg goo xam ne ndeysaan aw turam ku siiw la ci kawe waaye nag lam bëggoon doon ci amu ko yonent bi nee na képp koo xam ni say reene li ngay ñaan di ko bëgg mooy yàlla naa am sahaada su may faatu nee na bu fekkee lu dëggu la ci yow même boo deewul ci sahaada yàlla da lay jox ci yow yi ko am sahaada problème bi nag mu ngi noonu ñun ñu koy wax est ce ñu ngi koy wax am déet est ce que ñu ngi koy bëgg buñ ko bëggee est-ce que bëgg nga dëggu na ci ñun ñaari laaj yooyu kenn ku nekk na laaj ba moom képp koo xam ne yaa ngi ngéeju na nga am shahada booy dee na nga am shahada ah te li gën a ci imaan nag mooy gis nga en général ñi koy faral di ñaan ñi koy faral di ñaan te dëggu ci yàlla da leen koy defal bari waa na ñoo xam ñoo xam ni dañ ko doon ñaan te jig ci dëggu yàlla da leen ko defal subhanahu wa taala jamono yi paas ñu ngi may ne jëli benn borom xam-xam bu mag boo xam ni kenn ci suñuy masaayif moo ko doon nekk li mu ni moo ko jàngal mu ni foo ko mas a fekk rek danañ jàngalekat la woon nii waaye danañ ñaan sahaada nee na bi mu waree faatu benn taalibe boo xam dafa jékki-jékki rek mel na rab jàpp ko rek moo jóge fa jëli seen miñe ni ko tipp ci digg dënd bi fa la jaare faatu bi nit ñi naree wax mel na magam moo ni bàyyi leen lam doon ñaan yàlla yàlla may na ko sahaada la leen yàlla defal nag koy lu ñuy coowati am ko bàyyi jeex na il ne kon sahaada muy dee ci yoonu yàlla sahaada nag foofu mënees na koo amee ci façon yu bari nag ndax yéen ci yàlla bi ne waaw yéen lu ngeen jàppee mooy sahaada gars yi ni ko sahaada mooy dem ci xare ba dee fa yéen tamit ni kon ñu nar a sahaada sama xeet duñ bari jurit bu gëm yàlla déglu li may wax ba pare nag jurit bu gëm yàlla ragal yàlla di sàmm ay farataam di moytu mooy yàlla lu mu man yii may bëgg kii laa wax de waxuma keneen jurit bu gëm yàlla di topp yàlla góorgóorlu ci farata yi moytu mooy yi lu mu man ba dee fekk ko ca su dee ci yi dañ koy jàppee ko am sahaada biir buy metti lakk lakk miir daanu ci sa kaw fet yii yëpp ay xeet la yëf yëfaan la yoo xam benn bu ci nit ci dee gëm yàlla mu ko ci fekk rek wala am doom faatu ca yu mel noonu dañ koy compter dëgg la noonu diw diw shahid la waaye dañ koy jàppee koo xam ne am yoolu sahaada kon Xaalid ibn Walid radiyallahu anhu borom bi defal na ko amul benn jamono boo koy tuddee rek lu dul jullit ñi seen xel day dem ci xare ndeysaan mi ngi tëdd ci kaw lal lalu dee bokk na ci li mu doon dénkaane mooy fas yu mu doon war nañ ko def wax ci yoonu yàlla moo tax bi gars yi naan Xaalid daa denc alal du bari ci jamono yonent bi laaw de xam nga jamono ci àdduna baax sore na ci jamono yonent bi ay nit ñi ngi naan Xaalid dafa denc alal ju bari bu demee xare bu gañee ñii lay def ñoo lay def yonent bu ne bàyyi leen Xaalid yéen a ngi tooñ ab jaabur moom li mu am lépp da koy préparé pour fi sabilillah sadaqa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xoolal diggante boobu li bi dox ci at ni mu baree ndax Xaalid ñi ngi faat jamono Umar ibn Xattaab borom xam-xam yi jiyoo ndax biir Madina la faatoo wala du biir Madina juyoo la goo xam ne nag pour nga tarjiyaxal ci benn day xaw a jafe donte man biir madina laa jàpp ndax ñi wax ni faatowul madina indil nañ ay lay yu dëgër ku mel ni ibni kathir mi ngi koy leeral ci bidaaya wa nihaaya ñi wax ni biir madina la faatu indi nañ ay lay yu dëgër waaye li gën a wér te gën a dëgër mooy biir madina la te jamono jooju fekk na yaayam mi ngi dund moom xaalid ibn al walid ndax Amar ibn Xattaab doon na wax ni ah bi mu déggee benn maire daan di wax ni yow kay di di wax wax ju am solo naan yow kay yaa man junni góor yow kay yaay nangam Amar kookal la ñu ne ko kooku mooy yaayu Xaalid mu ne bàyyi leen ko mu wax kooku kay li muy wax dëgg la ah jigéen ñaa ngay jooy Xaalid ñi ngi yuuxaloo doo leen tere mu ne fii waxum lu bon wala nekkuñ fa def jëf yi seddo yii mu ne bàyyi leen leen ndax tuur nañ rangoon ci ko jaar gis nga de nekk fa ni salañ salañ ñee ko buddi say kawaar ak di wax waxi dof yooyu yooyu la ñuy tere waaye nag di futtee ko di xotti say yére wuy ñàkk naag waa jabala wuy sa montagne wa dem naag say mahal ko ma koy waxee ceeg góor gu mel nii dootuma ko amati ba àllaaxiraat yooyu ay mbir la yoo xamante ni islam da koy tere moo tax yent yàlla bi nee na wa man niixa ah yuazzab bi ma niixa alayhi képp koo xam ne dañ koy jooy di ko yuuxaloo yuuxu yooyu dañ koy mbugal ca bàmmeel dañ koy mettital bopp foofu nag borom xam-xam yi ñu ni waaw ki ñuy jooyal moom yoonam ñëw ci ñu koy mbugalal te wala tajir waasira isra uxra ibni taymiya rahimahullah bokk na ci ñi ko tontul tontu bu dëkk mu ni ki nga xamante nii moom dafa bëggoon bu faatoo nan ko jooyal la waa ji wax umma amr rakki umma amr mu ni ko gis na bu ma jooy bu ma faatoo nang ma jooy ba ak dégg yëpp yëg ni dee na xam nga loolu moom arab yi dañ koy def pour maanaam yëg ni dañ daan jël xaalis ñaari yëpp ñaari yëpp yi nag nga fay ko ak jooykat pour mu wër ak dégg yëpp jooy ni jiw dee na ku mel noonu dañ koy mbugal ngir jooy dañ koy jooy am naa ko gëm yàlla ki nga xam ne bëgg ko woon ibni taymiya mu ni waxul yu aaqab ah xam nga yu àqab mooy dinañ ko mbugal yu azab mu ne azab léeg-léeg day tekki mettital dëgg la fa mu nekk ca bàmmeel même bu naree baax day am lu ko metti ndax liñ koy defal bëgg ko mu ne loolu la jëf ci di tekki yéen ci yàlla bi nee na ki nga xam ne dañ koy fay wala muy faral di yuuxu wax wax yu bon yooyu ci dëkk su tuubul ba faatu suñu borom da koy solal ak pantalon boo xam ni ah godron lañ koy defaree godron ci sawar béttière béttière la ñuy jël formé ko ba mu nekk forme pantalon xam ngeen pantalon ci wolof ñu koy waxee tubay bu gudd keneen tubay bu gudd pantalon français ah xar jëppam mooy pantalon xar jëppam loolu la pantalon tudd loolu nag ñun gone yi xamuñu ko daanaka loolu la ñuy wax pantalon pantalon moom olof la yéen yàlla bi ne loolu lañ koy solal benn xar jéppam boo xam ni godorong lañ koy defaree ci sawara wala iyaasu billah kon musiba la doomu aadama di jooy jooy yu mel noonu ki nga xamante ni dafa faatu xaalid ibn walid radiallahu anhu mu daal di sëdd mu ni man xaalid maa ngi nii sëdd ci sama kaw lal amul benn booy tukki ci saaw yaram loxo baag tànk baag ndigg la biir baag kanam gaag gannaaw gaag lu dul caw caw jaasi ma nga fa wala jam-jamu xeet ma nga fa kooku dafa naaw yaram mokkal loxo mu ni amul fenn ku ma sa taxaw daw man duma kuy daw ñaan naa yàlla am shahada ba toon te maa ngi nii aw ma ko maa ngi tëdd sama kawlal nar a dee comme ni gileen bi dee ci biir gétt bi di jooy loolu maanaam lu tax muy dee ci kawlal bi ca la waxee waxam te mu ne laa naamat aajumul jubanaat képp ku nekk ab sàppe ci jullit yi boo tëddee yàlla bul mën a nelaw allahu akbar mun damaa ñaan yàlla ay yoon na am shahada tey maa ngi tëdd sama kaw la dara dee comme jirim buy dee ci biir gétt la waaye nag déedéet loolu loolu nga question de ngëm-ngëm la rek waaye laa sakkali li borom téere bi wax laay wax maa ngi am yaakaar ni waxuma la nga am ajuru shahada waaye ajuru shuhada yi xeetu Muhammad sax lay suñu borom mën na la koo yoolal li tax mooy saa bu ñu tuddee xare rek sa xel ci xare lay njëkk a dem nag bu yim def suñu borom jaaree ko ci loxoom ci lislaam amul keneen koo xam ne nii mandaxee na ko ca wala problème na ca na ko moom kon kooku mooy Xaalid ibn Walid jaadu na mbokk yi ñu xam ñu mel nii ndeysaan bi mu tolloo ci xare mu dégg fas wi ñeexal mu bëri mu ñu bëri xam nga nit day léeg-léeg day feebar di jéem a jub jublu fekk du mën a jóg bu déggee fas yu neexal rek xel mi dem ci ci ci ci ci xare ba mu ngi tëdd ci lalam mu dégg fas yu neexal mu ngi bëri jub mën sa jub mu tëddaat mu déggaat fas yu neexal mu bëri jub ba jafandu ci lal bi mën sa jub bi mu déggee fas yu neexalaat nag mu ne bëri ba jub si muy tëb tëb di génn rek lay tànn ci la daanu fa la faatoo maanaam mën na woon a muñ aw fas bi neexal mu jàpp ni jullit ñaa ngay dem ci xare moom mi ngi tëdd ci kaw lalam déedéet loolu mun koo muñ radiyallahu anhu wa arda mbokk yi ñii ci saxaaba yi muy gaa yu mel nii dafa jaadu ñu xam leen dafa jaadu ñuy jàngale seen i jàngale bayna al xiin wal aaxar ñu mel nii dafa jaadu ñu tuddee leen ay doom ngir seen i tur bañ a raaf ñu mel nii dafa jaadu suñuy xilaqaat suñuy duruus ñuy wax seen i njàngale ngir loolu kat dafay dolli ngëm ñi nga xamante ni yàlla baaxee na leen ñu bëgg yiw te bëgg baax ñii dafa jaadu ñu di leen ñaanal comme ni ko alquran di waxee rabbana gfir lana wa li ixwanina alladina sabaquna bil iman amel nga leen àq ñoom saxaaba ya taabiuun yi mooy di leen ñaanal sunu borom saxal leen ci njub wala tajal fi qulubina gillan lilladina amanu rabbana innaka raufun rahim ndeysaan bi amar ibn alxataab dikkee mu daal di jooy mu ne ko foogoon li la ndox sama diggante xaalis ak mbañeel ak noonoo mu ne xamoo dara mu ne nit ñi dañoo dem ba question de ngëm-ngëm la ñu def ci xaalis jàpp ni xaalis ñëw na ci xare bi mooy dañuy gagné te loolu wax na dëgg lu amoon la day su war a dem xare bi xaalis ñëw sax nga découragé dañoo demoon ba gëm ni xare bi xaalis day ñëw mooy tax ñu gagné ñëwut du ñu gagné Omar nee na ngëm-ngëm boobu laa bëggoon a jindi ndax bu yàggee mu yóbbu xeet bi su baaxul wax na dëgg mu dégg yaayu xaalis di wax yow de yaa man gu nangami góor yaa nangam mu ni bàyyi leen ko kooku kan la ñu ne ko yaayu xaalis mu ni wax na dëgg kooku wax na dëgg kala waxee waxi aboubacar de jigéen ñi dootum jurat doom ju mel ni xaalis radiallahu anhu wa arda moom omar ibn alxataab seede ci moom ay seede yu rafet bal sax nee naa la bi ko jigéen ñi jooy bu dee jëmmi jooy rek ca la yem mu ni bàyyi leen leen ndax ñu ngi tuur rangoñ ko ko jar muy xaalid ibn alwalid radiallahu anhu wa arda xanaa di delluwaat gannaaw rek wax la ñoo xam dañuy tàmbali la wax kat ba waxoon rek ah nu mu tuddati ñaan borom bi subhanahu ginnaaw leeral yu mu leeral jullit ñi fi ñu jaaroon inni tadakkartu wa dikra muarrixatun majdan salidan bi aydina adanaahu ah num tuddati maa ngi fàttaliku teraanga joo xam ni nekkoon na ci suñuy loxo waaye tey xëy nañ ñàkk nañ ko foo mën a dem ci l'islam ci àddina bi tey muy da ngay fekk l'islam muy kallaw kallaw yi mel ni picc muy naaw ci kaw jaww ji am liberté lool te bokk na ci ñu fàtt si doon tasaara moom xaalis mu ni occidentaux yi ñoom dañoo am ay maam yu leen jiitu ci caay-caay suñ naree jaaxle dañuy dellu sa ñoom ñu orienté leen mu ni wa nahnu kaana lana maadun nasinaahu ñun nag dañoo am suñu démb waaye dañ koo fàtte wallahi wax dëgg dañoo am suñu démb ñu gën a valeurer démb yi maam yi ku ne waaye dañ koo sàggane mu teg ci ni yaata yoon yoo xam ni ah da ngay gis ku mel ni Omar ibn al-Khattab mu ni yaa man yara umaran yasuuxu burdatuhu wa zeytu udmun lahu wal kuuxu mawaahu yow mi gis Omar ibn al-Khattab mi ngi sol benn mante boo xam ne ñu ngi ko dagg daaxe fukki daax daax ak ñaar am na ca ndax ni mu màggatee ah mbër bu mu def ci mburóom sax amu ko diw ñoor lay jël wala mu jël ah di ko capp ci ci ci vinaigre wala yu demee noonu ah kër gu baax sax amu ko ab xayma bu bu bu bu yamamaay te lay dëkk mu ne yahtazu kisra ala kursiyihi faraqan kisra muy nguuru perse ya bu déggee ñu ni ñu ni ñu ni ñu ni amar rek mu ne day ciib ba tees ba mu toog di yëngatu faraqan min xawfihi ndax ragal amar ibn alxatab ba mu ca noppee mu wax su am solo loolu lay jeexale mu ni yaa rabbi baas lana min mislihim nafaran yusayiduuna lana majdan adanaa yow suñu borom ñu ngi lay ñaan nga delloo si waatal nu kattanalal nu jàppandalal nu mbooloo mu mel noona nga xam ne teraanga jëm ñàkkoon ñu mañ koo delloo si waat amina amina la arda bi waxidatin xatta ukarriraha alfayn amin ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu defal ñu tawfiq dunya wal akhirah hada wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in